asalaamualeykum waa Sénégal mais pourquoi léegi koo gis mi ngi ci telefonam dugg ci Snapchat bi walla ci WhatsApp bi wala ci YouTube bi wala ci TikTok bi wala ci Facebook bi di gaaralante ci tarixa yi te sëriñ si ni yaakaar ñoo bokk benn jubluwaay bekk bokk kenn ku ne liggéeyal toujours ñun ñu ngi suñu telefon yi di gaaralante ci tarixa yi di ko statut mbaa di ko tiktok est-ce que mës ngaa dox ba gis sëriñ bu sant si buy gaaral est-ce que mës ngaa dox ba gis bu sant Mbàkke muy gaaral est-ce que mës ngaa gis ba dox gis sëriñ bu sant ñas mbaa laay di gaaral non ñun taalibe yi rek ñooy gaaral mais kon war noo tiit ndax yàlla naafiq yi muy junj ci alxuraan est-ce que ñun di def yooyu bokkuñ ci naafiq yooyu noonu te ñoo roy suñu sëriñ si roy seeni doom yi roy seeni sët yi ndax ñoom doo dox ba gis leen ñuy gaaral ñun taalibe yi ñu bàyyi gaaralante yi bàyyi parloo bi ñun ñëpp ñoo bokk jubluwaay bokk kenn ku ñu gëm bokk kenn ku ñu yaakaar kon ngalawaay bu dee Tuubaa nga yaakaar mbaa Tiwaawan nga yaakaar mbaa laay laayeen nga yaakaar mbaa ñeseen nga yaakaar ngalawaay fonkal keneen ku bokk ci beneen tarixa bi nga roy sa sëriñ parce que du ngeen dox ba gis sëriñ buy gaar kon ñun taalibe yi nan leen roy wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu